ni ko état bi diglee du yomb du yomb waaye du tee du ñuy xool rek ci diggante kilifa yi kilifa gee ca Touba ak ji fii ci Daaru li fay xew ak ni ñuy doxalee ak ni ñuy doxale lu ngeen ci man rek ngeen koy def ndax itam bu loolu amul day mel ni jëfewunu ndigal loolu it ngeen koy bàyyi xel ndem maa ngi fii lu ñuy namante namante itam nañu koy teg ci yoon di bàyyi xel fële sëñ Muntaxa di bàyyi xel itam sëñ Basiir waaw bu ko defee nga xam ni lu fa dul am rek bu ko defee ñuy bañ a fexe ñuy fexe ko du kii bu tee maag yéen dinañuy gise waaye nag li ma bëggoon dimanche bi jot ñuy may gise yéen du mën a du mën a nekk léegi faw ñuy muñ ba ci kanam dégg rajo bi itam mën naa wax ni du ko jar ndax fi ñu toll ko demoon ci sëñ Muntaxa jamono yi rajo du fa am ba demee ñëwee ci suñ Basiru Anta rajo du fa am du dëkk waaw mu ngoog bu ko defee nag loolu moom bu ko defee bu ngeen xamee loolu rek waaw te ngeen di kii waaw te ngeen di bàyyi xel ni ma ko waxee rek waaw ni ma ko ni ko kilifa yi diglee rek ñu koy kii waaw euh, masque du ñëpp koy mën a am muy set jamono bu nekk waaw net waaye du tee ngeen di kii bu nekkee ci kër yi yi tamit dafa kenn reproché dara rajo yi itam ñaare bu ngeen di kii bu ngeen di daje rajo ba rajo yi ko jar loolu ñu am na yoo xam ne bi ñuy bàyyi ba ci kanam dañuy weesu bu ko defee rek ngeen bañ a topp xeeru ji rek bu ko defee nag ngeen maa ngi bi moom bu seen xel day tàll bi